aussi ñu gis ni am na loo xamante ni jotoon na xew géejawaay mais dafa mel ni yàlla suñu borom mu ngi ciy def ndox mu sedd guy gi mu ngi mu ngi retrouver woo digganteem mag ay magam rawatina ki nga xamante ni kenn la woon ci moom muy Sa Kajoor àdduna bépp kontaan ñëpp euh, bég ci ànd bi nga xamante ni yàlla suñu borom defaat na ngeen ngeen àndaat ko ànd bi ci nan la commencé ak nan ngeen def ba yéen ñaar ku ci nekk retrouver waat sa moroom waaw jili Sa Kajoor Sakho Dior malal malal malal yàgg na ko bëgg. Cheikh Kane yàgg na koo bëgg ak ay nit ñu baax ñu ko quoi mais buñ ko yàggee bëgg te mag Sakho Dior tey bëgguñu woon tey ànd duñu ànd. mais dañoo dem ba xam ni dañoo dem ba xam ni su ma moom amul lenn loo xam ni lu dul ñu nekk benn la. moom bi mu feebaree xam na ñu xam dañoo nekk ci moom di wax man tamit xam naa lool mais damaa téewoon sama coin toog mais sama diggante moom dara amu ci. su ma mag la sama idole la suma royukaay la suma lépp la ba ma ne moom la ba tey bàyyi ma ba ma ne moom la ba tey musuma toog fenn kenn mooy sama idole même dont dañoo am réeróo sax mu toog sama koye dinaa toog wax li may wax <laughs> barki déew ñu waxtaan ma ak moom mais da nga xam ni kii man dama ko manqué woon da xam ni kii man dama ko manqué woon loolu mooy àdduna lan mooy àdduna jabaram barki déew ñoo nekk fii man ak moom ma nuyu ko laaj ko doom yi mbala kenn dem loolu daf ma man loolu daf may daf may neex daf may neex Sakho suma kilifa la mais gëm naa ne nit nit ku ci duggaat bu soobee yàlla di nga di nga ñëw wasaare ñu ñu ñu def sa photo. façon fa waaw wow sa photo lañ ciy def de ne la yaax nangam. mais bari na ni ñu ngi ci doon wax actuellement xam naa ni bu ñu tëddee du ñu nelaw ndax xam nañ ni guy geeg Sa Cadior dinañ waxante di début à la fin ndax du ngeen nëbbante. ji li man dama la bëgg a ragal nag de lii daa mel ni bi ma koy wax fekk woo ko de am na ñoo xam ne ay comprimés la ñuy naan fi mu toll nii seen xol mi ngi gonflé wu. ñi ñi entraîné ñi entraîné hôpital bi dañoo feebar ñii seen xol bi dafa yaa ma gën a xam seen kër yi moo mujj yaatu nekk ay quatre-vingt ndax mënuñu supporter loolu waaw am na ñu ma jot ñu ma gëj gis moom ñooñu moom ñu ngi hôpital moom ñooñu moom dañuy enterré waaw mais Sakho Yor moom su ma diggante ak moom li li nit ki naan su yàlla su ma bëggee dama bàyyi diw yàlla bu ma bëggee dama bàyyi ak Sakho Yor ndeysaan nas damay jékki-jékki toog nas ne ma sawaay yow yaa ngi diggante ak sawaay woo ko sawaay julli gi nii julli gi dama doon jënd ay joxe ma mënu ma bii ko jox Sakho Yor ma ne ko du ma ko yóbbu bu ko yóbboo mu ni jabar ji waaye yow indi ko ay détails xam naa saako yooyu même ko nee saako yooyu barki ko saa xam naa la saa yow da ngay defante naa yóbbu xar bi nga na xar bi <laughs> mais maa ngi moom saako yooyu nga guy gi da koo manqué woon tellement day génne day génne saako yooyu génne kontaan indi la yoo xam ne ay détails jili jili naa def benn émission à part loolu à la uniquement man ak yow ak yooyu fi ñu jaar barke alxuraan su ma ko sama sama xol day tooy. sa damaa xam saako yooyu bu baax amul xolu ki ñaan Sakayor lu mu am nit ñi la ko bokkal. weer ci bi am na ñoo xam dañ doon jël arme Sakayor guerre. ngir ngir ngir rek mettital ma mais xam na lépp. xam na lépp di ko jël arme ngir mettital day gis benn booy xam sax bëgg ko sax mais naan man Sakayor lii ma mais gis biñ gise ma mu ñu am amitié mu bàyyi ko gëmmuñu li ñuy def. <laughs> bu nekk loo xamante ni ànd bi yàlla na yàlla bu ci seytaane am yoon. yàlla na doon loo xamante ne day continuer surtout ñi nga xamante ni tey dañuy ànd ak mbër yi ñoom dañu war a xam ne defar rek moo leen war ñu moytu di diw moo wax li diw moo wax li ndax sëñ Abdoulaye Mbacke da daan wax naan lu waay fen am ko soo waxoon dëgg am lu ko kon ànd ak guy gi bu mu tax nga yàq keneen ndax tey àdduna dara ci àdduna yàggul te lépp mun naa jeex. nii nañ wax li pandal yi jóge fi rek nuyoo sant ñi ma gëj a dégg yooyu comme koy musoo maa jël ñu waxtaan benn exclusivité bu ndaw bu ñëwaatee nag ba mu nekk ci période combat bi nekk saal teg quatre cent cinquante kilos teg ko di pousse nga ñëw ñu waxtaan nga ne ah guy gi mi ci combat boobaa loo bëgg mën naa la ko jox. loo doon liggéey États-Unis parce que gis nañ say foto yoo xamante ni génn na ci net bi vraiment guy gi bi ñu gis wax dëgg liggéey na am na doole am na. may sol loolu moo tax may sol kii may sol jàllaabi bi quoi. non pas nëbb forme mais sama miskil xam naa sama bopp sama miskil laa indiwaat teg ko sama miskil rek laa indiwaat teg ko li mu nekk ci man di nelaw ma yee ko. te loolu bu ma ko indi rek rek taxaw. billaahi ak saako yor mu jubeel jubóol nii am na problème rek dafa ñàkk sens xam nga mën nañ def ñak sens bi ma ne saako yor alu mu ne ma alu mu ne ma mbër yaa ngi ma ne waaw mu ne ma à suivre. kon saako yor am na njariñ ci combat bi. ma yow ma ji la ay émission bi day dagg de. la ci kooku day taxaw ne defal dafa nangam nga def ko daan kooku mooy bëre. Hmm. kooku mooy bëre. mës na laa wax ci benn combat boo xamante ne ngay xam ni combat bi guy gi du ci dara. moo bëre combat la 2012 moo ko bëre moog Malal. Malal mii toog tey sama combat Ama Baldé 2012 moo ko bëre. lu nag laa lay wax. mu ne la lan. non loolu secret la mais. non combat bi jàll na ngeen wéet. saa ko wax la loo xamante ne ci combat bi ba nga demee loolu nga indi. te loolu nga mënu ma mënu mbër ma ñett yoon mënu ma billaahi ma suul sama ndey li gaay suul li amul. mun ma li ngay bëreeg man contact li nga bëreeg man contact bëri koog bëri koog euh, ama bul bu ci changé dara. man waaw munuma bu ci changé dara gis nga fi nga ma àgg noonu fi nga ma àgg noonu noonu noonu noonu defal nangam ak nangam loxo bi bu dugalee génnal ràccal say tànk loxo bi fexel mu jàppee nii. yéex na jàppee nii rek yow bu tourné jàppeel nii fii ba suba bu jël sa tànk bi du ci man dara te barka alxuraan nii la ma ko waxee nii laa ko daanee. parce que maam moom dañ daan contact bi école bi jug taxaw école bi jug taxaw. parce que daan na ma tël di ma tël di ma tël di ma tël di ma tël ba mujj gi mënatumaa tël mujj gi mënatumaa daan mujj gi man ak moom la école bi di xaar guy gi saako takk na ngemb. déggoo li ma la wax moo tax combat. sama école ma la du ma bàyyi ma fen am na ay années yoo xam ne da ngay dagg billet doo ko seetaan barke Seexul Tijaan da ngay dagg billet doo ko seetaan guy gi dugg si na saako yu dugg si na saako yu xëppoo suuf yi takk caq bi dëngal tàng yi oh làmb amatut billaay amatul. nga xam ne ñi ci dàq bëree lekk ñu ci xaalis. amatul laa la wax nii saako yor saako taxul suuf war naa contact ba mu ni nii jox ngemb jugal loxoom ci suufu ngemb li mooy saay yow kooku bëreetul kooku kooku su ma wax ci moom sax sama xol day tooy.